gis nga ko. 31 ans dama ñëwaat de Lansar tarkinda mooy dugg si xamante ni Papa Sow yegg def ay ay Mama Lamine ànd ak tarkindaay isan, di def ay mbiram tarkindaa baa ngi noonu Terkendala. Saan mi ngi noonu Saan ñoom Abu Ndiasse ñoom Mama Lamine Mama la ngi noonu Saan si dafay tegtam dafa kaalaw isa mu sor bopp bi le tarkindaa mi ngi noonu le phénomène de Lansar xale bi nga xam te ne na ci mbër yi populaire ci làmb ji ndeysaan mi ngi noonu ndeysaan si ngi noonu mbër jaar Halo? la éliminé. Combien Ok, tu m'as pris pour tes pauvres Oui, c'est mieux. Parce que là, vous n'aurez pas beaucoup de présence pour à aller Ok. Oui, oh. combat, puis voilà donc, de site, le phénomène de l'Ansar, avec Papa Sow le piment, le 5 avril, fële ca arène nationale nekk bés bu nga xam ne ñëpp a koy xaar parce que jamono jii ñuy wax moom rek moo fi nekk combat événementiel pour taxaw ndax xam ngeen làmb ci jamono ji mu toll ñu nekk au sommet de la hiérarchie ñi nga xam ne tey ñoom la ñu tuddee VIP ñu ci bari amuñu combat. kon nag dañuy jaajëfal Pape Abdou Fall mi décroché affiche bi affiche bi nag coow li bari na yoon wi yàgg na mais ren nga yàlla dogal mu sotti Pape Abdou Fall fas yéene ci liggéey ak groupe e mu am protocole d'accord wala boog partenariat bu mu fas yéene signé ak kër gi. ngir wéyal liggéeyam ndax le groupe E-Media xam ngeen ni am na E-Radio am ITV am na site e point sn ak page Facebook ak jumtuwaay yu xarala yëpp yi nga xam ne ñu koy utiliser pour def ko support de communication ci loolu Pape Abdou bi mu ñëwee seet si suñu kilifa yi ñu waxtaan ak moom pour trouver accord pour liguer. Liguer bi le dafa jëm la promotion de cet événement qui, ba avril le programme nga l'événement de événement visibilité am coow dinañ ko def Inshallah. On a premier acte bu ñuy a d'abord la signature entre le groupe. ñu daal di ubbi kàddu gi jox ko ñenn ci kilifa yi fi teew waaye tamit bu ñu ci jógee on aura tout au maximum pour waxtaan ak ñaari mbër yi loolu nag diggante presse bi lay ak ñaari mbër yi kon nag programme bi noonu la tëddee d'abord Pape Abdou Fall ak kilifa bi fi teewal le groupe Emedia pour la signature du contrat bi nga xam ne moom la doon ñaari Qu'est-ce que tu veux Je veux vivre, rester libre, je veux m'envoler. Voilà donc le partenariat est scellé entre le groupe Iveya et la structure par production. Mamadou Ibrakan, représenté Kergui en tant que Kilipo Nous avons le Niperik Hassan Sambo Diop Milifi avec Boubacar Diallo DJ 12. lii nag dafa nekk rek lu nga xam ne dañ ciy gërëm d'abord Pape Abdou Fall ndax ku nekk xam ne groupe bi bi mu jógee ràññee nañ leen ndax seen professionnalisme professionnalisme boobu ak vision bi ñu am moo tax bi ñuy waxtaan ak Pape Abdou Fall nga xam ne moom c'était euh, moom indépendant nekk yi tamit ku nga xam ne dafa bëgg lu muy dugg am ci ndam ndax miin naa ko xam naa ko ñoo bokk suñu Kajoor dafa nekk nga xam ne toujours il est dans l'innovation mais lépp lu mu dugg da ciy xar tànk tubéyam pour am ci ndam donc ñuy ñaan yàlla li ñu bëgg ci partenariat bi yàlla na yàlla sottal ba ñu egg ci bés bi yàlla may ñu ci ndam d'abord dañuy bàyyi ki nga xam ne moo waral coow li muy Pape Abdou Fall mu def le propos introductif wax ci partenariat bi wax ci événement bi wax ci li nga xamante nii moom la nar indi en mode en terme d'innovation pour que Siteu Papa Sow nekk un événement phare de parce que mooy événement bi ñu njëkk a jël xam nga Pape Abdou dafa nekk ku xam ne jikkoy américain la step by step day jël mbir dafa pour dëgër ba fay ko mu soog a soog leneen am na leneen lu muy waajal mais loolu bu léegi li ko soxal mooy Siteu Papa Sow ñu def ko mu nekk un événement réussi Pape Abdou Fall vous avez la parole. jërëjëf Malick euh, jërëjëf Malick ñu lay gërëm di sant di gërëm assistance bi yëpp directeur général groupe e gërëm suma partenaire yi nga xam ne ñoo toog fii muy la banque agricole du Sénégal. Il y a à ma gauche Madame Diack, à ma droite Sémou. président manager yi fi tegu muy président boobu. di gërëm suma doomu ndey yi nga xam ne ñoo fi toog muy association des promoteurs de lutte avec frappe du Sénégal. di gërëm journaliste yi ak presse bi gërëm yi nga xam ne ñoo fi teew di Papa di Siteu gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu dalal fii muy teeru bi nga xam ne dañ leen fi indi pour teral leen fi gërëm la sécurité gërëm ñi nga xam ne ñoo ànd ak mbir mi euh, di leen ñaan rek ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi dugg ci liggéey bi ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin euh, teeru bi nag dañ fi ñëw ki ñu ko facilité di président des amateurs muy président du Jël Jékku li tax ma taxaw foofu ci ñi nga xam ne ñoo accompagné mbër yi dama bëgg rek ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi liggéey liñ fi indi bu ñu paree dem ci cocktail bi fële donc def yëfi jaajee rek mbóoyeen ak mbengeen bu ñu paree ku nekk ànd ak sa champion daañu dem ñu bañ a ñàpp man suma liggéey ci ci toujours loolu la pour man lamb amul problème mais nit ñi ñëw ci lamb ñoo am problème ñaari protagoniste yi muy papa sollicité ñoom ñooy bëri yéen ñi ànd ak ñoom ngir yàlla na rafet ba ëllëg suñu dara ci pour ñu dalal ñu du doon jafe-jafe ndax ñu yàgg nañ ko bëgg mais fu ñu ko defee moo ñu tëwul kon bu ñu ko teeru bi nangulee waruñu fi def mukk loo xam ne dinañ ko xeebi donc pour revenir encore ci làmb bi man suma wax du ci bari làmb la boo xam ni dama ni yàlla moo ci teg loxoom ma ne woon ci beneen combat muy Tapha ak Ama ma dara def jóge joxe avance yàlla defal ma li gën ci man li gën ci man mooy combat boobu entour sama doomu ndey bi nga xamni programme bi moy ke ni dama ndewon ci tafatin ak Ama Baldé yalla def li gën ci man ma diko ci sante diko ci gëreum parce que l'homme propose Dieu dispose xena non mo gën ci man yalla bi dara tawul bi lolu antoulé suma ma doomu ndey fàllu yaay woo ma ne président ma ngi woon ci site ak Papa Sow ndax doo jël combat boobu ah ma ne ko ci bu lay neex moom président Babou mi nekk ci suma càmmoñ donc ma ne leen làmb ji en deux heures de temps la taxaw kon nag dañuy ñaan yàlla mi ñu ko yombalal rek gën ñu ko yombalal ba ñu def ko mu jeex ci jàmm ak salaam ba bu ci def dara moom ñuy xeebe ba bu ci def dara moom ñuy xeebee di ñaan itam

rendez-vous ces euh, cette considération ak gratitude pour nga xam ne defal nañ leen ko ci respect ak charte yi nga nous ne moom la kër di doxee ñu respecté ko bu ñu ci de presse Inch'Allah rabbi le 15 avril mooy face à face au Papa son ak le le le 15 février dit le 15 février nous donnons face à face Siteu à Papa Sow Faut faire un taxaw làmb bi li ci doon gratuit taille la jeex na li des ci làmb ji yépp doona parce que umpule woon ni làmb traverse des difficultés énormes Nous avons xam ne duñ rabbi jalon yi ñu koy posé ci Papa Sow ak Siteu incha allah ngeen jàpp ko mais face à face boobu événement lay doon culturel boo xam ni àdduna wërngal képp dinañ ko bàyyi xel te it paas dugg la du loo xam ni da ngay ñëw rek daal di ñëw toog kooku loolu am bu ñu paree ci loolu dina am benn présentation drapeau parrain bi boobu it événement la pare événement bi Mame Boye deuxième édition donc c'est un ami un frère on partage tout donc moi et bi remise événement lay doon boo xam euh, invitation lay donne li ci des Demain ko le 14 mars le 25 mars mooy open press u Siteu c'est commercialisé fañ koy defee événement culturel lay doon site ak ay mbokkam ak ay fansam ak ñu lañu tay cay ci biir àdduna war nga képp di ko en direct le 26 mars mooy Papa Sow open press am c'est commercialisé c'est ça c'est un événement culturel lañ cay def ak la cay xew yëpp Papa saw ak ay mbokkam ak fañ koy defee ñun ñoo koy choisir parce que bu njëkk euh, wër ni moo doon choisir fi muy defee open presse donc y une innovation de taille fi may waxee président bu Diagne ko mi nga xam ne moo waral ñu toog fii mu ngi nii di si le président des amateurs donc ñu lépp moom la gannaaw yàlla donc moo ñu yombalal fii dugg génn ba waa hôtel bi accepté ñoo recevoir comme président mu ngi a jaajëfal bu ñu paree loolu le 3 avril am na benn plateau de veille du combat boo xam ni technicien yi yëpp danañ ko def ci diggu arène nationale boo xam ni boroom xam-xam yi màcc ci lamb yëpp dañ koy def seetaan ko en direct incha allah le jour J mooy le 5 avril mbooloo mi loolu laa ñu woon dana leen ko tëggal ñu ànd jàppalante ci Euh, il a été constaté que chaque événement bu jotee ku nekk fu accréditation accréditation ce ça ressort de mes prérogatives de mes responsabilités c'est à moi de choisir qui accrédite il n'y a pas de pression à mettre sur moi parce que la pression n'aura pas de place. Nous n'avons jàppalante ci loolu y a la presse pour l'information Il y a la presse pour l'information mais en na ñoo c'est beaucoup seen bopp la ñuy c'est beaucoup plus nga xam ni la logique voudrait quand même que vous mec taxaw sa morom jàppale sa morom beneen innovation de taille bi nga xam ne am lamb bi amul guichet ñëw nii dem jënd billet déedéet fii ak ay jamono yu néew danañ leen woowaat ñu daje wax leen lamb bi nan la ñuy duggee ci biir lamb ji dootul ay dem ci guichet bi taxaw naan jaay ma billet nii déedéet du am ci lambaaw lamb Papa Sow ak Siteu lii lépp dañ koy indi pour que ñu indi beneen changement ci doxalin lamb écarté wuñu kenn defuñu fi organisé wuñu fi fi kenn mës ko organisé mais nag làmb dafa toll fenn foo xam ne il faut que ñu changer doxalin bi Alaaji Malick maa ngi gërëm assistance bi yëpp gërëm encore suma sponsor mooy la banque agricole du Sénégal fii ak ay fan yu néew ñoom du wax tey tey may wax gërëm ITB directeur général bi gërëm président manager yi président des amateurs gërëm ñaari mbir yi gërëm assistance bi mention spéciale nag suma doomu ndey yi toog muy association des promoteurs du euh, de lutte avec frappe du Sénégal parce que làmb ji ñoom ci boppam ñoo koy organiser ci seen loxo laa koy teg wasalaam merci euh, Pape Abdou directeur général de du groupe Emedia Emedia euh, DG mu nekk une grande première ci euh,

Euh, wala askan bi ci li nga xam ne fas nga ko yéene liggéey sa diggante ak euh, la structure PAF production Mamadou Ibra Kane ah day faral di wax ne man du ma escalier kenn ku bëgg dem fu sori wala nga ñëwee wala yi parce man damaa wex xat moo tax combat la bu nga xam ne jaay na boppam présenté na boppam parce papa ku ko xam xam ne moom c' est un lutteur offensif c' ku xam Siteu xam ne Baye Fall lu taxaw ci kanam yaakaar dalaa war a ramasser dem ci leneen lu ko mën a may Siteu may na ko kon Pape Abdou combat bi nga tëgg tubaarkàlla macha allah combat gënu ko neex te a am défi bu mag parce que fii làmb toll tey ak xam ne yéen a fi am combat bu tax nit ñi di wax kon yéen. yéen a war a renouveler bi yéen war a créer déclic war a delloo si waa làmb ak ñi nga xam ne dañoo bàyyi làmb yéen leen war a delloo si ci làmb ji moo tax bés bu nga xam ne lu ngeen ci def ci promotion doyul lu ngeen ci def ci fulla ak fayda doyul lu ngeen ci def pour dëggal amateur yi doyul parce que caabi làmb ji mu ngi ci seen loxo kon nag dañuy bàyyi d'abord Papa Sow nuyoo ubbi waxtaan bi jox site mu nuyoo ñu ubbi laaj bi journaliste yi laaj ko ayca Papa Sow vous avez la parole. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nekk ak sant di nuyu waa diaspora bi di nuyu presse bi di nuyu Pape Fane di nuyu sponsor bi nga xamante ni mooy banque agricole di nuyu waa ID Media di nuyu amateur yi du daan jekko di nuyu aussi euh, père Babou ci turu ménagère yi di nuyu ñu fi daje ñëpp di nuyu aussi sama adversaire sama rakk muy Sita di nuyu ñëpp di wax salaam banque agricole waaw moom laa moom laa jiital <laughs> banque bu mën a dimbalaat bi waaw ah. waaw incha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sax maa ngi doon wax de suuf maa ngi doon wax les jours qui font toog ñëpp fa ñëw ñëpp xoolal ma ñëw suñu doo doon ci lu gàmb mu jóge ak suñu sëriñ sëriñ sëriñ ak àbba yaa dama sonn ci lu gàmb mu dëkk sama xarit bi sa sëriñ mu desiree te ma sonn ma sa sëriñ sama benn xarit Merci beaucoup. kon nag euh, dañuy daal di rek ubbi laaj yi man tey moom du laaj damay réguler rek jox sama mbokk journaliste yi ñu samp seen laaj ndax ñaari mbir yi wax naa leen ko kenn ku ci nekk dafa am ginnaaw ndax euh, papa boo ko waxee mu ne Fass Colobane Gueule Tapée ak li ko wër parcelle 1 ba 26 ñu ngi ci ginnaaw nga wax si te mu xamal la moom tamit. ni jàmm gën caaroy ak li ko wër yëpp ñu ngi ci ginnaaw waaye tamit ni mu waxee foog na séeréer boo ko déggee xam ni doomu île du Saloum la doomu ñoo ñëwoon jon waar mar fafaa ko mar suur mar looj jën na ba baasul ba jàpp gox goxaat yooyu yëpp moom bu bëree bëri war naa bëri bu bëri war naa bëri Papa Sow dañuy faral di wax ni doom di doon jàngil bëri yàgg-yàgg dees na la jàmm papa ma ko jiitu ci làmb am na sax ñuy wax ne papa ma ko dàqoon na bëri Ousa di magam moom tamit nekk ci làmb mu nekk ku nga xamante ne nii dafa ñëw frayer passage ut turu boppam ba imposé kon ñoom ñaar seen combat dina métti lool dina tàng lool ki njëkk a euh, bindu pour laaj mooy Assane Waalo Gueye suñu làmb Assane Waalo Gueye suñu làmb

daal buy ñëw ci naka lay ñëwee. waaw alhamdulilah quoi xëy na Pape Diouf jàpp na daal 5 avril ñëpp jàpp ne incha allahu rabbi 5 avril fële ci arène nationale dinaa bëri loolu daal laa ma ci wax incha allah. kon daal boo gis moom mënoo ko bañ a def parce que da ngaa jël avance waaye comme dañ laa dàq face laaj bi leer na kay nan ngay ñëwee ñan ngay àndal parce que loolu actuellement nii war na mën leer ci bopp ñi nga xam ne journaliste yi loolu la laaj waaye ba léegi moom dañ ko def ndax ku jël avance kenn du toog. waaw ñun daal doomu Fass lañu man kenn mënu maa génne Fass xëy na mën ma génne sax ci association wala structure mais man maay Fass Papa Sow man maay Fass structure mën nañu ci génne di woo doomu Fass yëpp Médina Fass Colobane Gueule Tapée HLM parce que 1 ba 26 Yoff Cambérène Kaolack Kajoor

muy ko sonn ci man démb ak bërki démb ba tey te dee moom sama kilifa la ma koy ñaanal rek naan ko ñaanal ma sama combat bi dem ma ci ndam jërëjëf jërëjëf xam ni daal papa bëggul xuus ci ñu ci laaj bi nga la laaj dégg wala mu ci ñu ki Papa la la bëre yow làmb ji mystique rek nga ci am ndax dégg nga loolu wala yi tamit bu dee dégg nga ndax lu lay déranger la ci combat bi. waaw déranger wu déranger innovation nga indi ci wàllu piétage nga am. te làmb xam na ni dafa xaw a inform xaw a ci ay innovation alors ndax yaakaar nga ni trouvaille boobu dina prospérer. allo ok damay apporter benn précision billet dina am mais dañ ko dul jaay ci stade à deux mois de l'événement dana leen fan yu

mooy dañuy jaay bii avant événement ku dikk joxe sa billet ñu daal di la koy scanner nga daal di dugg mbaalo yàq il faut que ñu seet nan la ñuy ba apporter des innovations ñi nga xam ni ñooy amateurs yi fans club yi ñëpp dinañ jël suñu ay matuwaay fii ak ay fan yu néew wala fii ak un mois wax leen mbir dinañ leen dajalewaat nii communiqué ci ba ku nekk xam nan la ñuy def pour am billet de telle enseigne que yow boo duggee stade rek da ngay joxe ñu scanné nga daal di jàll même ña fa nekk ñu encaissé xaalis noonu c'est-à-dire que bu ma nee stade kenn du fa jaay billet doo joxe xaalis nii donnant donnant ñu jox la billet déedéet dafa am fu ñuy jaar pour nga am sa ticket boobu fa ngay jaar boo fa jaaree am na code bu mu lay jox code boobu boo liggéey ñu habilité vérification bi ñoom ñoo koy scanné wane ni lii valable na nga daal di jàll loolu mooy innovation majeure bi nga xam ne moo am ci làmb ji. jërëjëf leer na. maa ngi nuyu ñëpp nuyu les deux lutteurs et le man sama question maa ngi ko doon adressé à Papa di dellu si waat ci. dàq bi nga xam ne waa Fass dàq nañ ko Papa li ma la bëggoon a laaj mooy euh, dàq boobu yow bi nga ko yëgee nan nga ko dundee d'abord ñaareel bi mooy yow est-ce que dàq boobu ñu la dàq après nga jël combat ba pare est-ce dafay nekk avant kii ñu koy waxee ci inconvénient yow maanaam lay dissuader avantage lay nekk ci yow toujours combat ay ca papa maanaam dàq dàq bi nga dàq. waaw merci jërëjëf def naa combat bi taxawoon le 23 octobre côté boobu ah Pape Fall ah. def naa combat bi le 23 octobre taxawoon na waaw man ñu ma dàq le 12 décembre su ma jumtee ah waaw kon combat bi moo jiitu loolu. waaw di la wax amuñu ci xel ñaar ku daan génn fi Dakar di bëri fu ne doo am xel ñaar ku la gunge ñu daal ñu ngi ci day entraînement le jour ji ngeen ñoo bëri si incha allah rabbi incha loolu maanaam li ñu xam ndax source de motivation lay doon wala sur le plan mental et psychologique dina am lu mu la affecté parce que ku ne xam na ne Fass fa nga juddoo fa nga yaroo fa nga màggee fa nga defee sa carrière nga war a xëy bëri ji ci beneen label wala ci beneen kii loolu lan lay def ci yow. la wax ok ok bon ñun ku ñu xam-xam ne ñun ñun doomu Fass la ku ñu xam-xam ne doomu Fass ku ñu xam-xam ne ñun ay doomu Fass dëgg yàlla xamuñu fenn fu dul Fass mais làmb moo demee noonu rek nit ki ba ngeen ànd ànd ànd ànd tey ji mën naa xëy bu ma sax ma génn rek yem fa yàlla yóbbu ma ànd bi day yem te ne yàlla fi la ko yemale na rafet rek na rafet comme comme man xale maa rafetal ñi seet may bàyyi ak ñëpp man jéem a gën rafetal te xam ne àdduna dara jaru ko fi loo fi wax guddi yi toll nii dootul effacé wu à vie àdduna dafa dara jaru fi surtout ngay waxal nit lu mu deful na ànd ci ngor lépp jeex ci ngor waa Sow mën sax bu yàlla defoon mu am xaalis yenn xaalis làmb heure bi bàyyi naa bëree xool leen moo mën a gën a may xaalis ndax làmb xaalisu làmb day koy dégg rek day koy dégg rek waaw fii dara jaru fi lu ñaaw na rafet na rafet rafet na pare na rafet rek jërëjëf merci Pape Alioune Mbaye Walfadjri Pape ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur sa sant di nuyu ki nga xam ni mooy Pape Abdou Fall mi taxawal bés bi di ko ci ñaanal moo am ci ndam di rek benn appel saison bi door na combat yaa ngi am waaye fa tubaab fa yàlla combat bi bokk na ci yaakaar yi nga xam ni mën na tax làmb gën a suqaliku kon na ci ñëpp jàpp ñëpp ànd ci liggéey di nuyu ñëpp ñu jël nuyoo bi di ko teg ci loxo koo xam ni suñu kilifa la ne jotaay bi olof yi dañuy faral di wax ni sa naaru góor soo bëggee mu naat doo ko dégg sa xarit waaye doo koy dégg xaritu naaru góor lambit suñu bëggee mu naat nun ko dégg koo xam ni kàddu nooram dina méngoo jëfu nawetam kon le président Bassirou Ba suma nijaay maa ngi lay nuyu di la jox sa cër ak sa wàccuwaay mbokk bu noonu weesoo may ndokkeel ñaari champion nga xam ni ñoo war a muy Siteu muy Papa Sow ñoom ñaar kenn mosu ca yàq làmb papa ginnaaw bala li waral tey faas ñu jëlee la fa bokk na sa féete ak mbëru parcelle olof yi dañuy wax ni ragal féete rek xañe wërsëg ñu bëggoon xam contact bi li nga xam ne yaa ngi koy pare combat bi ndax yaa ngi ciy liggéey ak mbëru parcelle yi for nañ ci wewu nag it Papa Sow dafa war a taxawal lu bees muy écrire ñu bëggoon xam loolu ndax am na ak bu fekkente ni pare na ak fekk combat bi di ñëw le 5 avril ndax it bëgg a defar say këy bëgg am sax ñu liggéeyal du nekk loo xam ne pression la Siteu ñu lay jox sa cërëb sa wàccuwaay di wax ni situl mbër mu mag la mbir moo xam ne fi mu yegg ci làmb jomam ak jàmbaaram moo ko fa indi waaye Siteu fi mu ne tey muy Lansar mu bokk ci champion yi nga xam ni ñooy yaakaaru équipe ba ne ci loxol suñu ndijaay Max Mbargane moo am lool expérience làmb ñu gis Siteu ak combat ak ki nga xam ne mooy Sa Thiès gis Siteu combat ak ki nga xamante ni mooy Gouye Gui jom gi ñëw na jàmbaar gi ñëw na fit ba ñëw na ak bëre ba waaye ci njeexital ga làmb daan ak daanu la ñuy bëgg a xam ci loolu ban expérience bi ciy tiré par rapport ak sa combat ki nga xam ne mooy Papa Sow ak fan lañ la ci mën a xaar mbokk yi ñoom jéggul ngeen ma. merci euh, papa li ñu kàddu yu rafet na d' abord euh, papa nga tontu ci laaju papa bi. waaw merci papa Aline man bref phase dañ maa ci ànd ak waa parcelle xanaa am ñoo xam ne dana war a yóbbu monument jël ay pôles jël essence dugal ci taal leen xalaat non dama ne man booy sax ma dàq ci ànd ak waa parcelle ndax man kenn mu ma tere ànd ak waa parcelle parcelle laa dëkk mais xam naa fu may yem kenn ku nekk te ànduma ak ñoom jiit koom dama ànd ak ñoom jiit cër respect mais ñi nga xamante ne xaalis moo tax ñuy ànd ak mbër xanaa boobaa ñoom dinañ yóbbu monument place de l'Obélisque jënd essence jël ay pôles dugal leen ci taal leen ah. No, kom nee, dat gaat de vallen. malah saya saya ay ay saya xaat saya leen fete man andu ma saya wa parti dama andu ak ñoom andu mag ak rak wax naa ko abbas doy kérok ci réunion bi ma ne ko président mu ne ma waaw ma ne ko ada fas am combat ñëw sa kër ne la père jàppale ma doy def mu ne ko dinaa ko jàppale ma ne ko loolu ma doy parcel ku ci am combat di ma seet si dinaa am naa combat su ma amee sama poos ma jox la su ma amee sama xalaat ma dooli la daa may dégg ni mu dalee Abbas mooy dal keneen noonu la ma dalee dama nekk ci kër bërëb boo xamante ne nii dañ ma fay jiital bokkuma fa kenn écrit mais dañ ma cee jiital te cër yàllaa koy joxe xale yi bu la euh, juboo dama si rejeté kenn ku ne dama lay téye ma ko ngir dërëm def ma ko ngir dara dama ko def te yàlla rek tax samay raq dañ bu si ma la conseil dama lay conseil lu mu am leneen lu mu jël dama ko ci def mais utuma ci dërëm ñu ci dërëm na leen war a ñoo leen war a ñoo leen war a punir pour dire merci beaucoup ñu jàng ci euh, Siteu mu ne bëri na ak euh, Sa bëri ak Gouye Gui euh, ban expérience nga tiré ci ñaari défaite yooyu pour mën ci maanaam am profit sa diggante ak Papa ban jàngat nga def ci ñaari défaite yooyu. waaw man ci ñaari mbir yi ci expérience bu bëri yokk na ma tamit lu bëri si làmb te tamit ma xam lu bëri. mais nag ba mu nekk lu baax a xam ne si làmb ñu am ci defet ndax dama manqué expérience ma jógee sama combat boobu jógee si beneen combat ci làmb victoire man ak sama combat man ak góor dee xanaa bu doon bu ñu fàtte sama bopp quatre heures ma ñu toj sama bopp quatre heures ma toj sama bopp ma ñu tojee sama bopp damay sacrifier ma tawoo pour si doon naa am pour naa ko am tawoo pour naa am njëriñ te dee bi lépp moo ko def mais te wax ne ko ñu koy seen seen xamal seen bopp bu tax par de fois dañu ko doon combat bi dafa bëri xamal seen bopp bu tax mais ki ñëw tey ñu ngi bëri mais dama sëbal leen dama sëbal leen maa ngi jéem a def lépp moo bëri moo ngi sëb ci ñoom dama dama lay joxe kon am na ci wax bu mu sant si yàlla félicité ki ma daanoon loolu la wax mais dama bëgg chaque jour ñoo xool nit lan mooy njëriñam ak lan mooy tànkam Merci, euh, Sita. Fatma Inforium.